e yenni topp seen mag di jariñu tv garan gaaw ngeen aimer abonné laal cloche notification bi et manam maanaam da ngay tetel si loxo bële loxo bële nga capp ko fa léegi capp nga ko ñëwal fii bi kolos bi kolos bi nekk fi tam cappal def defal la tout bu sa tout la sa kaw ngay ajabani rabu sama والأرض بالذي سما ومن أخا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا بوك يوتدي لي مودي تيرب سيرن محمد الامين جوب دغانا بمو تودي ارواء النديم من عذب حب القديم ñu fas yéene ci ànd ak yéen seen mbokk aliou badara di ko leral ci wolof sunu kem kartan di ñaan borom bi subhanahu wa taala nam ñu daan maye ci ya ko won woon nu ko tàmbali matal ci ndimbal ma kartanam ndax la hawla wala quwwata illa bih non kay ñaan mu may nanu motaliko ak jamm ta mu nanguko ta musaluñ ci ak gis sa bop wala ak yakole mbokk yi téereb sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana bi téere la boo xam ne day jàngale jaar-jaari sëriñ Tuubaa maanaam dafay taarixal sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu waroom xam-xam yi dañ ne man arroqa waliyan fa ka annama axyaahu nit ku baax ku fi bàyyi ko boo jaaraatee ca ay jaar-jaaram di ko nettali dafa mel ne danga koo dekkalaat muy dund téere boo xam ne dafa tàmbalee fii sëriñ bi ganee jamono am njàngam dégg nga yoonu murit ni mu sosoo ba mboolem lu aju ci yi ngay dégg ñu di ko nettali dem ca tukki baak alxaybatul baxriya ak dellu sigi ak dem ga njaareem ak ni sëriñ bi ñibbee fa boromam subhaanahu wa taala ak bi mu génnee àdduna dellu ca boromam tagg yi nga xam ne ak ay seede yi nga xam ne moom la ko boroom xam-xam yi defal yooyu yëpp sëñ Mouhamadou Amine bayiwu ci dara waaye tey suñu tomb bu njëkk bala ñoo dugg ci téere bi dañuy jëm ci boroom téere bi ba noppi leeral tuuti rek yaari baat ci sëriñ Mouhamadul Amine Diop Dagana mii mooy kan ci ab tënk mooy kan ci ab tënk ndax ñu bari ci suñu mag ñi dañ leen réere ba boo doon dox di laaj nit ñi Eh, mag nangam mooy kan wax dëgg ñu bari duñ la ci mën a ton sama maas gi kon ñu njëkk a tàmbalee ci moom mooy nga xam ne moo taalif téere bi ñu xam moom mooy kan ci ab tënk eh, li ñuy njëkk a leeral nag moo di wax ci yoonu murit moom day baax lool ngay am delluwaay bañ a wax rek di dem su ko defee am na benn sëtam bu ñuy tuddee Serigne Cheikhouna Diop na ko yàlla dolli wér. defoon na ci ab téere tudde ko tanbi tanbihul xamim fi saaxibi irwa in nadim téere boobu indi na ca lu yaato yaato yaatu incha allah naka noonu sëriñ Mouhamadul Amin mii ñuy waaja tënk ay kàddu yu gàtt fi moom moom ci boppam yàlla da koo defaloon tawféex lu bari ci ak dundam mu bind ko ba bindaale euh, dat yee sax dati tubaab yaag tubaarkàlla dati weeri wolof sëñ Mouhamadul Amine Diop mi ngi ganee jamono ci atum cent 1304 ci gàddaay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mi ngi nekk ci weeru tubaab 1886 nga gis ne kon ak ak ganeeg ganeeg jamonoom du soreeg ñi gën a mag ci njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ñoom ñu ci bari sëñ Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Fadil Daaru Salaam lañ ganee jamono ginnaaw ba sëñ ba doog fee sëñ ba jóge fee ñëw Touba sanc ko te yooyu yëpp du génn daanaka 1888 incha allah te kon sëriñ bi mi ngi gën a jamono 86 kon gis nga ne sorewuñ ci ban bis la ganee jamono nee ñu moom daal ci mujjug weeru baraxlu wala boog ci njëlbeenul Ramadan ab gaaw la woon ab gaaw la woon dafa am sikk sàkka ci. ndax bis bam gane jamono ca la wéru koor ga tambale won wala bok ca la wéru baraxlu jéxé ndax daño jégé bisub gaaw bobu ma nga gane jamono ca dëkk bobé ñukay dakantalé dagana dëkk bobé ñukay dakantalé dagana motax ngay dégg ñaan señ muhammadul amin job mom dagana ñukoy dakantalé moy dëkk bi nga xane fala wajurum nekkon waajuram taalibeeb sëñ tubaa la woon dip soppeem dip xaritam sëñ tubaa moo ko ko seedeel danañ ci ñëw mu ngi tuddoon tafsir ahmadu Diop moo nekkoon waajuram wu góor moom sëñ Muhammad moom moom yi di tafsir ahmadu jóob moo dencoon soxna su ñuy tuddee soxna xannatu jóob soxna xannatu Jóob mii mbokkam la woon kon dafa ci mbokkam dafa denc mbokkam soxna xannatu Jóob mi maam soxna Jóob lañ ko daa wooye kon ne xam ne na xannatu nee ñu yaay yonante yàlla Muusa moo tuddoon noonu kon mi ngi gane jamono ci ñaari waajur yu tedd sëriñ tafsir Ahmadou Diop ak soxna wala boog maam soxna Diop ci niñ ko gën a miine noonu la gane jamono ci dëkk boobu ci at ci at moom yi waajuramu góor wii nag dafa nekkoon xaritu sëñ tubaa dib taalibeem ndax sëriñ tubaa radiyallahu anhu da daan dem di ko seeti te bu demee bu demee masaa dem foofa ca dagana ca këram la daa dal wax nañu dem gu mujj ga gi nga xam ne fa la sëñ tubaa jaare dem Mauritanie ba mu demee nag dalu fa ba demee dalu fa ma nga dal ca kër ku ñuy wax euh, mbariyaan jaw kër kookee la dal waaye nag teewul sëñ Tuubaa foofa la dal kat waaye du tee nag day génn di dem ca kër bàyyi sëñ Mouhamadul Amin mi muy tafsir Ahmadu day génn dem di ko seeti lu bari sëñ Mouhamadul Amin moo koy nettali nee na bi nga demee ba nga xam ne nag sëriñ Tuubaa mi ngi laxas war a jóge Dagana googi war a dem Muritani ci tukki boobu ngeen xam. sëñ Tuubaa suñu boroom xamal ko ne ko sa xarit bii day di tafsir Ahmadou Diop mi di bàyyi sëñ Mouhamadul Amin kon ñu maa si xaar deuxième épisode bi insha allahu ak Jariñu TV. yéen ñi topp seen mag bi di Jariñu TV gaaw ngeen ngeen zeme abonné laal cloche bi et partagé euh, maanaam da ngay jël sa baaraam bi féetal ko se loxo bële loxo bële nga tapp ko fa léegi tapp nga fi ci baaraam bi kolos bi kolos bi nekk fi tam def defal la tout bu sa tout la sa kaw ngay laal boo ko defee rek vidéo bu dugg da nga sa jot waalum koor